xam ni dafa am coppite benn changement de paradigme bu am 2016 euh, ba 2000 euh, ba ba jusqu'à récemment euh, ci sa waa majorité sax dañ doon wax naan opposant bi di Ousmane Sonko mosuloo attaqué parce que yow yaa nekk di ginnaaw parce que yow yaa créé partie bi depuis une semaine ñu remarqué ne aujourd'hui Euh, muy Ousmane Sonko muy Bassirou Diomaye dañuy défendre Macky Sall Ousmane Sonko nee na da nga nax Macky Sall ba emparé wu euh, de de de de de de l'État euh, attaques yi dirigé wu ci yow ñuy défendre président Macky Sall Bassirou Diomaye nee na bu ñu demoon élection yow ak Macky Sall moom Macky Sall lay jàppale parce que Macky Sall bu lay xeex da lay xeex à visage à visage découvert xam nga yow sa bopp da nga wax tontu wax ci da nga ne dañ doon wax ni Ousmane Sonko du ma attaqué Macky Sall la doon nekkoon ci ginnaaw kon tey mën nga wax nga ni wax jooju yëpp kul woon ci dara d' accord nga wal d' accord. ah yow lay lay yaa ko wax kon tey ji bu wax ji sa wëlbate ko boo ñu attaqué ma attaqué wu ñu Macky Sall di ko jàppale jàppal nii it bës a ngi ñëw léegi ñu wane ni wax jooju ñu la wax it wax jii ñuy wax it wekkuwul ci dara. man ni may doxale noonu rek lay doxale c'est d'être loyal en toutes circonstances bañ ko ma vaar la may wax démb ak la may wax tey mooy damay fexe bu méngoo mën naa juum nag mais la may def rek lay def